dafa wax ak askan wi mu leer nañu danaa leen jiite waaye julli bi ñaari rakk la ñu ne ko ku ne xam nga ni tabaski ñaari rakk la rakk day nekk juróom-ñaari kàbbar mu nuroog nag mandaam bu njëkk di juróom-ñaari at rakk ñaareel bi war a nekk juróomi kàbbar waaw bu paree lu mu ci njëkk moom nag waaw ma ne moom nee na du sëlmal nee nañu ko nee nañu ko subhanallah imaam ne du dégg imaam subhanallah mu du ma dégg damay kabaraat pour un troisième mandat du mën a nekk kon nag xoolaatal sa xoolaatal situation bi nga bañ a dégg ñi nga xam ne ku dugg ci kàmb ci dugal te bu tàngee ñoo njëkk a daw.